ubbi teg jumaay Masaalikul Jinaan ñu jàpp ko ñaar fukki fan nak juróom-ñaar ci weerub septembre bi nga xam ne ci la ñu nekk bi la ubbite nag tax ñu teg benn comité boo xam ne nii comité d'organisation la waaye beneen comité scientifique boo xam ne nii day gàlloo saytu lépp lu jëm ci wàllum waajtaay yi waaye lu jëm ci wàllum programme bi jamono ji nag programme bi ñi nga xam ne ñoom ñoo gàlloo mbir bi ni mel di fësal ne am na ñaari aspect ci lu jëm ci aspect scientifique bi aspect culturel bi ci lu jëm ci wàllum caada mi nag bokk na ci exposition bu mag boo xam ne nii def nañ ko ci du grande mosquée bu Massalikul Jinaan exposition boobule li ko waral mooy bépp taalibe boo xam ne nii bàyyi ko nga ci gox boo mënti jóge ci àdduna wërngal këpp boo ñëwee nga mën a xam euh, taarixu jumaay Massalikul Jinaan li ko dalee ca tàmbali ba ba ñuy sumb projet bi li nga xam ne moom moo jëm ci construction yi waaye tam anam bi nga xam ne nii moom la ñu ko tabaxee ba li nga xam ne moom mooy li jëm ci ouverture bi lépp gaaral nañu ko ci ay këyit waaye itam euh, taf ko boo xam ne ni ñëw nga lenn ci taarixu Masaalikul Jinaan du la umpu waaye itam ñu rax ca dolli ay mbind yoo xam ne nii ñu ngi ko jagleel Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci guddi yi nga xam ne am na ko ci Ndakaaru ci départu tukki bi nga xam ne nii tàmbalee na ko ci dëkk bu sell bi ci Touba fépp foo xam ne nii jaar na fa ba keroog mu yegg si Ndakaaru ba nu ñu koy yóbboo Gabon loolu le nag di mbir moo xam ne nii waa daayira Jaalibatul Maraaxib ak mboolem comité d'organisation bi ñoom ñooy saytu mbir mu ni mel bu taalibe ñëwee ci biir exposition bi tam daañu leen guidé ñëwee wan leen li nga xam ne moom la ñu fiy gaaral ñi nga xam ne mënuñoo bind wala mënuñoo liir am na ay doomaa dama yoo xam ne ñoom ñoo sasoo mbir mu ni mel ba taalibe bi bu fi ñëw ñu daal lay mën a expliquer li nga xam ne moom la ñu gaaral ci biir exposition bu ouverture bu Massalikul Jinaan li nag bokk ci aspect culturel bi nga xam ne nii ñu ngi koy gaaral ci programme bi nga xam ne ni ñu ngi koy wéyal boobaak léegi mat na ayu bis di ay causerie di ay waxtaan yoo xam ne nii ñu ngi koy amal ci Massalikul Jinaan yokkute loolee exposition xam ne nii mel na ni soxal na taali yi loolu ndax bis bu nekk day fees dell ay visiteurs.